ak ni ñu waajale màggal gi waajtaay fan la toll ñi ngi ànd nag ak médecin chef district bu Diourbel di docteur Mamadou Dieng ak euh, soxna ndey Maguette jóg mi nga xam ne mooy médecin chef euh, district bu Touba euh, kon kilifa gi ginnaaw bu ñu la dalalee jàmm di dalal jàmm kilifa yi nga àndal yëpp itam dañ lay jox kàddu gi nga wax nu liggéey bi nan nga ko gisee ak yan nga ñuy dolli ci liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen gërëm. sëñ Bousso gërëm ah, kilifa yi yore jumaa ji yëpp ah, comme ni nga ko waxee dañu ñëw fii si ndigalu suñu ministre de la santé ànd ak ah, médecin chef de région médecin chef de district ak kilifa yi nga xam ni ñooy liggéey ak ñoom ci wàllu xeex mbas mi pour ñu ñëw xool accompagner dëkk bi si ndigal bi sëriñ bi joxe ci wàllu màggal bi Euh, ñun suñu wàll mooy xool euh, lépp li nga xam ne moo dem ci wàllu mbas bi naka lañuy def ba nga xam ne euh, nit yëpp kenn képp ku fi ñëw di nga fi mën ñëw ak jàmm ñibbisi ak jàmm salaam. bi ñu ñëwee nag gis nañ jumaa ji te liñ fi gis vraiment dal na suñu xel bu baax a baax te ñu ngi vraiment di leen ci félicité bu baax parce que gis nañ ni xaaru leen am na benn dispositif boo xam ne def nañ ko fii ci jumaa ji ci wàllu cet bi depuis bi ñuy dugg si si buntu jumaa ji. gis nañ aussi respecté masque bi am ci biir jumaa ji ni ñu arrangé aussi nit yi ni ñu julee ci biir ak ci wàllu ziar bi ba ci site d'isolement boo xam ne am na ci biir jàkk ji donc loolu nekk na loo xam ne am na solo trop te dal na suñu xel bu baax a baax a baax euh, waxtaan nañ ci yenn aspect yoo xam ne dinañ ci mën a am luñ ci dolli suñu euh, waa santé bi ak région bi ak district bi Euh, ci wàllu yombalal euh, nit yi nit ñi mën a circuler ci biir jumaa ji mais également jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo donc wax nañ bu lu bari ci wàllu ndox mi nga xam ne war naa am ci jumaa ji ci wàllu gel yi ci wàllu masque yi euh, loolu yëpp loo am solo la donc vraiment suñu xel dal na ci fii ñu ngi jógee ci région médical bi waxtaan nañ gouverneur bi waxtaan nañ kilifa yu bari te ci wàllu màggal bi lépp li nga xam ne en tout cas dinañ ci am nañ ci ndigal ba nga xam ne askan bi bu fi ñëwee fii dinañ fi ñëw ak jàmm ñibbisi ak jàmm salaam te damay wax ni ñi ngi wax màggal bi mais war nañu aar Touba parce que bu ñu xoolee ci mbas mi fi mu nekk nii kaa yi ci Touba wàññeeku na bu baax a baax mais kaa yi bëri na ci yeneen dëkk yi kaa yi ñu ngi bëri Ndakaaru te ñoo ñëpp dañuy ñëw fii ci Touba donc euh, man suma message mooy surtout mooy dañu war a aar Touba war a aar suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu nag pour ñu def ko il faut que ñu respecter suñu les mesures barrières ba nga xam ne ñun bu ñuy ñëw war ñu fagaru et puis surtout respecter mesures yi nga xam ne yeneen ko def fii ci biir ci biir dëkk bi. donc vraiment loolu laa doon bëgg wax te xam ni daal en tout cas am nañ ndigal ci suñu kilifa yi ba incha allah ba feeg màggal bi am na suñu ay équipe yoo xam ne ñu ngi fi ci wetu médecin chef de région bi ak message chef de district bi donc lépp li nga xam ne euh, laaj na ko ci wàllu xelal ci wàllu jumtukaay. incha allah dinañ def ci lu ñu di leen gërëm di leen sant jërëjëf def na Bousso li mu waroon wax yépp wax na ko damay jiital ci nuyoo bi xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér du nuyu kilifa yi fi nekk yëpp du nuyu mbooleem njabootu sëñ Touba di nuyu ñi nga xam ne ñoo yor jumaa ji muy mu Muxaddamatul Xidma nga xam ñoo yor. jumaa ji ñu gis ne tey euh, taxawaay yi am ci wàllu xeex feebar bi ci biir jumaa ji taxawaay yu ñu rafetlu la ndax dañu àndoon tey ak docteur Bousso professeur Ba ak docteur Adja Ndiaye ak professeur Ndiaye euh, ñu ñëwoon fii ànd ak médecin chef de district bi pour xool taxawaay yi nga xam ne déjà am na ci jumaa ji nan lañ ciy gën a taxaw jàppale leen ba nit ñi mën a def seeni i te duñ fi jële feebar bi te duñ ko fi indi ñuy rafetlu taxawaayu daayira bi ndax gis nañ lave-mains yi fi nekk gis nañ tamit ni ñu organiser woo pour kuy ñëw bunt yi ngay jaare bunt yi du benn ku nekk am na bunt boo war a dugge am bunt boo xam ne fa nga war a génne gis nañ siyaar yi niñ ko organiser ni nga xam ne noonu la ñu wax ni noonu lañ koy or organiser pour képp ku ñëw di dugg ci jumaa ji nga xam fi ngay jaar ñuy ñaan nit ñi ñu tënku ci organisation boobu nga xam daayira bi organiser nañ ko te fexe ba li ñu digle ci wàllu raxas loxo yi bala nga dugg ci jumaa ji wala ñu defal la gel ñu sàmmonte ak moom ba pare takk mask yi fexe ba ñëw sooy ñëw ci jumaa ji nga takk sa masque ba ba nga génn te soo génnee tam tànk yaa ngi ci mbedd mi wala nga nekk ci dëkk bi ñi béegoo sa biir kër nga continuer di takk sa masque te bàyyi nuyoo bi nuyoo bi ak jaxasoo bi ndax loolu itam mën nañ ci jële feebar bi kon ñu ngi sant bu baax di sant euh, waa daayira bi ci seeni taxawaay di leen wax ni ñun pare nañ pour ànd ak yéen ci liggéey bi taxaw ci ba liggéey bi mucc ayib donc lépp lu mu laaj rek tey waxtaan nañ ci te suñu demee dinañ rendre compte kilifa yi docteur Bousso dina def rapport am jébbal ko ministre de la santé mu xool nu ñuy gën a accompagner dispositif yi nga xam ne mettre nañ ko en place fii ci Touba jërëjëf. baax na kon jërëjëf euh, docteur Bousso kon fekkee am kii rek mën nañoo waaw kon baax na jërëjëf ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. kon loolu moo doonoon ndaje mi nga xam ne euh, ministère de la de la santé ñëwoon nañ tey fii ci jumaa ji euh, docteur bu Bousso jiite woon délégation bi ànd ak euh, médecin chef régional di docteur Mohamed Dieng ak médecin chef district bi di soxna Ndeye Maguette Diop ñu dalaloon tey ji dalaloon leen tey ji ci jumaa ji ngir waxtaan ak ñoom ci wàccaayu màggal gi jërë ngeen jëf ñu ngi séntu ñëpp jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah wal داري وثبتا بالهادي الوفي